Euh, gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi euh, sant Serigne Touba sunu Serigne tey dañu am ay gan yoo xam ne dañ jóge Chine ñëw fii ci bureau UNACOIS Yeessal muy gan ñoo xam ne euh, quarante quarante deux chefs d'entreprise lañu délégation bi ki ko jiite mooy président chambre de commerce bu Chine. mi ngi nii xam naa ne après dana jël kàddu su fekkee noppi na euh, tous les membres de l'INACO Yeesal euh, ñoom ñëpp teew nañ fi tey pour euh, teeru leen muy affaire mbir moo xam ne sant nañ ci yàlla nag bu baax a baax ndaxte ku ne xam ne Sénégal réew la mu dal moo xam ne am na stable li ci gërëm nag le président de la république bi nga xam ne tey moom mooy suñu président te ku ne xam na ni mu jote ci réew mi jotin la woo xam ne mbirum yàlla moo ci dugg ba tax na pays yi nga xam ne ñoo nekk ci monde bi yépp sawar nañ ñëw Sénégal euh, pour ñëw fekk ci secteur privé Sénégal pour créer relation suñu diggante ñoom parce que ku ne xam ne na réew moo xam ne amul jàmm euh, benn réew du sawar pour jëm kon fi mu tool nii ñii dañoo ñëw rek euh, di lu njëkk ba yaakaar na li ñu am ci ñuy demandé pour dugg ci Sénégal kenn xam na lu toll ñu ngi ciy gërëm nag gouvernement Sénégal bu baax notamment euh, Yacine Fall bi nga xam ne moo jiite affaires étrangères ak la ministre de l' intérieur euh, bi nga xam ne képp ku dugg ci réew mi loxoom a ngi ci te mi ngi faciliteel suñ bépp partenaire boo xam ne dafa soxla jëm si ci réew mi euh, ak dugg ci dana ko yombalal loolu ñu ngi ciy sant autorité sénégalais yi. parce que ñun fu ne la ñuy dem ci àddina dañuy dem Europe Asie Moyen-Orient amul fu dul dugg te gis nañu ne gouvernement yi ñuy fekk euh, nañ fonk seen secteur privé kon ñun bu fekkee ne dañoo am gouvernement boo xam ne ñoom ñooñu ñu administré suñ sañoon lañ ñuy defal bu ñu ñëwee fii ñu fay leen fay bi mooy ñun laaju ñu leen frais laaj laaju ñu leen laral lu dul ñu faciliter ñuy ñëw seen dugg ci réew mi te vraiment loolu ñu ngi koy def nañ ko bëggee. di remercier encore tous les ambassadeurs yi nga xam ne dañoo nekk ci bitim réew nekkal fa Sénégal parce que ñoom itam à chaque fois ñuy génn waxtu woo xam ne dugg nañ ci réew ma ba ñuy génn foo ñu toog ñu ngi ànd ak ñun amatuñ benn liggéey pour ànd ak ñun ba keroog ñu pare suñu mission loolu itam maa ngi koy seedeel ambassadeurs yi nga xam ne dañoo nekk ci bitim réew ñii bi ñu ñëwee itam liñ ko doon sàkku am nañ ko ndaxte chef d'entreprise yëpp ñëw nañu fi nañ seen i seen def nañ biitu bii ñoom ñëpp euh, seen xol sedd na ci ñëw gi léegi bu jëlee kàddu dana ko confirmer boppam en tout cas ñun sant nañ tey bu baax a baax di ñaan yàlla itam yàlla dimbale ñu parce que invité nañ ñu bi ñu duggee ci biir ñu préparé pour dem fekk leen Chine maa ngi invité tous les journalistes aussi xam naa ne sax sama doom maam moo dara ne journaliste yi bu ñu ñëwee fu ngeen di jëlee ay bii waaye yàlla baax kon nag invité naa leen yéen ñëpp bu ñuy dem. ñu yóbbaale leen parce que bu la ñuy jox bitim réew ngeen di ko wane lu am importance la loolu daal laa ci am ci lu ma la ci wax. monsieur Cissé est-ce que mën nañu xam euh, ñoom euh, chef d'entreprise yooyu noonu ci yan domaine lañuy gën di yëngu. ñoom ñoom bu ñu jógee nii tous les chefs d'entreprise yónnee woon naa ko seen organes yi liste yi ak lépp bu fekkee jël nañu kàddu danañ expliquer ñoom nombre de personnes yi ñëw ak kenn ko ne lu muy def danañ ko expliquer incha allah su fekkee ne bi eh, jox nañ leen kàddu danañ ko expliquer. président fii Sénégal yi fi yàgg jooy produit si moom boobu yéen seen position par rapport waaw ñun suñu position euh, produit yi fii doon dugg dafay wuute ak li ñu bëgg a def ñun parce que boo nekkee Sénégal lépp luy luy luy toroxal doomu Sénégal yi da koy moytu ñun ni ñu bëgg a def ak ñoom ñoom bu ñu indee ay centres li ñu bëgg def unité industrie yi ñu def fii parce que industrialisation suñu ministre bi nga xam ne moo yor commerce dafa jiite industrie en même temps ñoom li ñu am du jeex yàlla may na leen ko mais du ñu nangu aussi ku am sa mbalit dugal ko Sénégal loolu na ko wax ñëpp dégg li ñuy nangu rek ñu ñëw consigner suñu effort ak ñun bu ñu andee produit brut ñu monté ko fii defar ko ba nga xam ne méngoo na ak doomu réew mi yi jariñoo commerçant yi dana leen dimbale ñu créer emploi loolu moo tax a jóg mais suñu pas dire que euh, ñu ñëw fi buub ay bagages andi ko fi rek jarul ñu fii parce que commerçant yi nekk Sénégal yëpp. xaw ma dëkk bu ñu xamul mais Chine bokku ci ku ci nekk xam na fa ngay dem am nga fa ku lay jaay am nga fa koo xam ne ci soo soxlaa moo ndil la loolu noo jóg li ñu tax a jóg mooy réew mi changement yi ñu bëgg ñun secteur privé mooy fexe ba kenn dutu andi produit fini loolu sañ nañ ko te ma di leen yëgal ne bi ñu toogee ak le président de la république euh, bi ñu toogee ak moom en tant que secteur privé waxtaan ak moom lam ñu wax dégg nañ ko ñi di ko remercier baax moom Bassirou Diomaye Faye parce que dafa ñu wax ne Euh, li mu bëgg moom mooy. bi ñu nekk si province bu ñuy wax Zhejiang euh, euh, soriwul trop Shanghai am na ñu bëri ñu ko xam donc tey dañ fi ñëwoon ak 39 entreprises chinoises yi nga xam ne dañ ñëw tey dirigé par le président de la chambre de commerce ñu tudd Zhu Sheng ñëw ay entreprises yi nga xam ne ñu ngi si domaine d' yu yu bëri quincaillerie cosmétique ay voilà packaging ay ñi nga xam ni ay aussi. Euh, c'est des c'est des chefs d'entreprise mais aussi des capitaines d'industrie ñi nga xam ne dañu am seen usine bopp donc tey dañ fi ñëwoon pour xool euh, naka la ñuy explorer le marché sénégalais pour moo pas ñëw rek profito mais pour xool ak de euh, concert avec euh, le secteur privé sénégalais xool nan la ñuy nuyee partenariat pour euh, que le contenu local aussi mun si gis seen bopp man comme ni mu koy waxee je suis un sénégalais fier d'être sénégalais damay jël intérêt Sénégal mettre ko au devant du ma jël intérêt beneen pays def ko parce que je suis un patriote et fier donc damay bëgg aussi autorités yi ñu jàpp ñu jàppale ñu ñu ñu ñu ñu ñu dem si kanam incha allah donc je vous